jaajëfal alxaaji sëriñ Mbàkke Sylla mi nekkoon ci jataay bi ñaanal ko tawfiix sutura ak teraanga ak poche yi def dara dem bañ yëkkati jataay bi te tolloon ci àqi ñaari way dencante te tolloon ci di lim àq yi nga xam ne sëy ko moom ma tolloon ci di lim ba agsi ci nekkin wu rafet wi muy almuachara bil maaruf te sunu borom digle ko ci alquran ci suratu nisa aya 19 wa aachiruhunna bil maaruf ma doon lim al al muaashir bil maaruf waaw ba tolloon ci di ñëw di ŋàbbaale dara wàcc sa kër ëndaale dara bul xeeb tàngal bul xeeb singom yow daal ŋàbbal dara loolu ngay ŋàbb luy luy rafetal ab diggante la di ko baaxal waaw booy ñëw ŋàbbaale dara bu dee jëkkër bu dee jabar loolu lañu daan tuddee sërija waaw sërija tabarkàlla boo boo tukkee ba jaar puut nga jënd sërija ba boo ñëwee ñu xam ne kii jënd na sëriñ ca <laughs> wallaay ndeysaan tabaarkàlla yooyu am na solo lool wa achiruhunna bil maaruf kon lim naa lenn ci àq yi nga xam ne sëy bee ko moom nan ko nañ ko sàmmal sëy bi ñoom ñaari way dencante yi su ko defee nag mu des àqu jabar ci jëkkëram àqu jëkkër ci jabaram maa ngi ñëw tàmbalee ci àq yi nga xam ne jëkkër ji moo ko ameel jabar ji na ko jëkkër yi note na ko jabar yi note mu doon lu ñuy waxtaane ndax sunu borom subhanahu wa taala nii ñu def association yi nga dem ministre de l'intérieur ñu signal la nga tàmbalee doxal sa règlement intérieur di rajee ka sanctionné ka neexalaate ka def yëf ab sëyitam nun la mel sunu borom daa yónni ku ñu wax Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu indi benn règlement intérieur boo xam ne bii ci la sëy bi di jaar waaw dégg ngeen bërki démb ca assemblée national ñu wax ne règlement intérieur assemblée bi nii lay def ñun tam suñu fële ci conseil économique social et environnemental <laughs> tubarkalla ñoom ca ñoom cooy waaw nun la ñuy def secrétaire merci mooy am suñu règlement intérieur boo xam ne bii bu ñu toogee dañ koy fàttali ñuy jéem a dox ca doxin waaw ab sëy daa am loolu dafa am règlement intérieur waaw tubarkalla ak yooyu nga xam ne dafa war ku góor ki dafa am moom ay xaaj ñaari xaaj la ñaari xaaj la Oustaz Hady Niass dégg naa ko ñu waxtaan yu am solo tabarkalla ci waxtaani fajaram moom it ñaari xaaj la xaaj benn bi mooy xuquuq maliya mooy àq yoo xam ne àqi alal la àqi alal ca la mahar bokk ca la nafaqa bokk may gu njëkk ak dépense dana ci ñëw ci teqantal mu am àq yoo xam ne du àqi alal jëkk jabar jee ko moom waaye du àqi alal danañ ci ñëw moom tam lu mel ni maandu te lu mel ni maandu te gi ngay maandu te diggante aawoog ñaareel su fekkee dangaa waaw nekk noonu bokk na ci àq yi nga xam ne du àqi alal danaa ci ñëw moom itam mooy àqi bañ di ko lor di xoññal sa jabar jigéen ku ko xoññal rek tubarkalla yàlla nee na mu ma xoññal la duma ma la wàcc du ma la yor bu ko def jigéen mukk bul topp sa mer waaw boo mënatuta yor rek dellool ay bokkam ndànk te delloo ba na rafet soo mënatuta yor waaye bul fa nekk di xeex ak xoññal ak def yëf ba yàlla di la ci teg ay daana ay nattu loolu baaxul loolu baaxul maa akramahunna illa karimun wa maa ahanahunna illa laimun àq yooyu nga xam ne àqi alal la àq ba ca gën a rëyti jiitu ca mooy can mooy can can mooy may gu njëkk xaw ma premier cadeau la wax xaw ma professeur loolu mooy can ndax lislaam lim def foofu ak rëy min xusni riayati l islaami lil mara wa ixtiraamihi laha an aataaha xaqaha ah fi tamalluki foofu li nga fiy dégg lépp professeur ji muy may gu njëkk lislaam di ko puukarewoo di wax ne maa fi njëkke mooy ñu jël alal teg ci loxol ku jigéen wan ko ne ko dangaa saña moom léegi ndax bu njëkk jigéen dañ koy moom rek waaye du moom dara léegi nag bi lislaam joxe may gu njëkk da ko daal di jàngal xaat ne ko dangaa saña moom moo tax suñ ko ko joxee bàjjan ba jël ko pasar pasaree ko defut lim xam bu ko yaay jëlee pasar pasar ko defut lu mu xam moom ku jigéen ki moo ko moom mu tax lislaam di wane ne su ko neexee doom paat ca may jëkkër ja boo ko defoon ci dëkk